kuy teral say gan ne ay ndab yu amaana mën def lool te ànd ak qualité ba tax na bu leen kenn naxati dama ni lu jekk yanj te ànd ak qualité feeñ dong nga ko mën a amee mu ji KBSB ak GTI lii di ay teg la bool yu sell te rafet ay plateau yakkukaay yu taaru ay mbana ak ay booli dama ni yegg seen ci biir ay plat en inox yu naay dëgër këcc dis lool te ànd ak design ay thermos café dale ko ci un litre ba ci seize litres ay plateau mélamine ay kuddu ay torchon ay nappe de table ba si ay fourchette dolli si ay service ndekki ba ci lépp luy électroménager waaye itam am nañu ay glacières yu mag ak yu ndaw ak yu verre à eau ak yu boisson yépp ngi leen di xaar ci biir yéen ñi nga xamante ni yéene berndeel di jaar ci yoon yi fàttewu ngi leen mukk ndaxte am nañu ay barquettes ay tasses à ay gobelets ay papier film ay papier aluminium ba si mouchoir ah bernde nag dafay ànd ak cet te loolu nag i moo si mën ba tax na indi na leen ay raxasukaayu loxo ay paan ay siwo ay poubelle ay defukaayu ndox ay satala njàpp yu mucc ayib te ci lenn lu leen di lor ci seen wér-gu-yaram ndax ca qualité ba la am nañu chaise yu mag pour mag yu relax ak chaise yu ndaw pour xale yi ak yu mën a dalal gan yi ma wax yépp nag ku ci bëgg am gaawal gaaw dem ci magasin KBSB yii ma leen di limal KBSB Touba Mbédum 28 ca marché Ocass tournalu oto Touba Mbàkke yi ginnaaw kër Serigne Mahmadan Mbàkke di nga fa fekk Cheikhouna Diop ci numéro de téléphone bi 76 644 16 24 am na itam ci wetu Orabank bi kër Serigne Modou Lo Ngaabu di nga fa fekk Cheikh Abdou ci numéro de téléphone bi 77 373 31 99 wala nga dem ca garage bu ndaw jàkkaarloog garage Guédé di nga fa fekk Jili borom Bagdad ci numéro de téléphone bi 76 644 16 25 bu fekkente ni yaa ngi Jurbel demal ca marché Ndoumbé Diop jàkkaarloog quincaillerie Serigne Baba Thiam di nga fa fekk Cheikhouna Diop ci téléphone bi 76 boo àndee Kër Bamba sunu boutique groupe Touba Industrie kenn du la mën ci bernde gis euh, jéego yu jéego yu euh, actuellement il est très bien au fait des efforts qui ont été consentis euh, pour venir auprès de lui. dina euh, gannaaw bi sàmmonte nga xam ne ñu naan doon xaw diggante France ak Sénégal ak France ak yoonu Mouride il est très préoccupé par les relations qui, lient, qui remontent de très longtemps entre la France et le Sénégal d'une part, mais aussi entre la France et le Mauritisme. C'est <laughs> tout. que c'est ça son message. Tout ça englobe beaucoup de choses déjà. Ça englobe beaucoup de choses déjà. Il a, très bien compris. Euh, Parce que... avant toute chose vous remercier de nous recevoir, euh, la délégation climatique et moi. nee na kon moom ñu ngi lay sant moom ci turu délégation bi nga xam ne ñoom la àndal. nous sommes très euh, très heureux et très honorés de cette rencontre. Euh, et je voulais vous dire avant toute chose le respect que nous portons

dans ce pays dans la société sénégalaise. xam ne itam taxawaay yoonu murit ci biir réew mi taxaw taxawaay yoonu murit tamit ci fi ñu toll nii ci àdduna si. alors vous l'avez dit le le l'amitié entre euh, nos deux pays nos deux peuples est une amitié très ancienne très profonde et très solide. nee comme ni nga ko waxee diggante Sénégal ak France lu yàgg la waaye lu dëgër la waaye lu sore la tamit. cette amitié elle est fondée sur. Euh, une histoire partagée avec ses euh, ombres et ses lumières sur des valeurs communes et peut-être euh, surtout sur les liens personnels et familiaux qui unissent nos deux peuples. nee na diggante boobu li ko li ko li nga xam ne moo ko laltaay nee na dafa doon loo xamante ne am na ay diggante yoo xamante ne mën naa doon mbégte waaye am na diggante yoo xamante ne sax mën naa doon lëndëm lëndëm waaye loolu lépp dafa doon loo xamante ne lu soree loo xam ne ñoom jàpp nañ ko te xam nañ ko bu baax a baax a baax diggante Sénégal ak ak France. Nos dirigeants se se connaissent, s'apprécient et se concertent régulièrement et c'est quelque chose d'essentiel dans le monde troublé et dans la période difficile que nous traversons aujourd'hui. nee na moo tax it ñoom ñu ngi fexe ba saa ne ñuy waxtaan. ak di yëgoo ak di sàmm loolee ci jamono ji rawatina ci jamono ji nga xam ne adduna bi ay jafe-jafe ak yu yu yu tar yoo xamante ne da koy da koy romb ñoom ñu ngi wéyal lool di sàmm loolu bu baax. les Français les Sénégalais savent pouvoir compter les uns sur les autres. nga xam ne diggante France ak Sénégal kenn ku ci ne yaa ngi mel ni kuy wóolu sa morom di ko doyloo di di di bu baax. je voulais vous dire aussi que la France a le plus grand respect pour l'islam Euh, nee na bëgg na la wax itam ne France daal fi toll nii euh, am na pas-pasu wekk l'islam ak fonk ko waaw respecté. Euh, c'est une religion avec laquelle mon pays a des relations très anciennes. nee na ndax dafay diine joo xamante ne France am na am na diggante boo xamante ne bu yàgg la boo xamante ne seq na kook l'islam témoigne de l'intérêt que nous portons à cette religion et de l'importance qu'elle a pour nous. Euh, par exemple, euh, l'existence d'une chaire au Collège de France sur l'histoire de l'islam et sur l'histoire du Coran. nee xam gu ñu xam loolu moo tax sax ñu jël ay matuwaay boo xamante ne am na benn barab boo xamante ne euh, dañ ko fàggu foofu ca France te dara taxu koo jóg lu dul di gëstu li nga xam ne dafa jëm ci cosaanal l'islam De même, ce très, ce très beau euh, département des arts de l'islam au musée du Louvre, ou la très belle exposition qui avait eu lieu euh, à l'Institut du monde arabe sur les trésors de l'islam en Afrique. nee na tamit institut bu mag bi nga xam ne moom la ñuy wax institut Louvre am na fa benn euh, département boo xam ne banqaas boo xamante ne l'islam rek moo ko tax a jóg moom lañ ko jagleel ak tamit ba tey jii li nga xam ne muy gëstu wàllu l'islam soxal na leen tax institut bi nga xam ne moom mooy institut du monde arabe moom tamit ñoom dañ cee def lu ne di sonn ngir xam l'islam Euh, pour le dire autrement, l'islam a, a, toute sa place en France. Euh, c'est la deuxième religion euh, en France. On n'a pas de statistiques religieuses en France, mais on estime que la communauté des, des, des fidèles musulmans représente près de 6 millions de personnes. l'islam a une place ci France. ndax euh, rek boo jëlee l'islam nee na moom mooy ñaareelu diine joo xamante ne nit ñi ci lañu buur jëm ci amaguñu nag nee na ay ay ay ay ay lim yu yu leen wóor ne nii la ñu toll sax waaye nag fi ñu toll ni xam nañ ne lu toll ci juróom benn tit million doomu adama yoo xamante ne ay jullit lañu ñoom leer na leen yoo xam ne teg nañ ci seen loxo ñoom xam nañ ko. Cette communauté fait partie euh, de l'histoire et de l'identité de la République française. et ils sont bien sûr membres à part entière de la de la communauté nationale. nee na mooy jullit yooyu nag dañoo am seen wàccuwaay ak seen place ci biir France ak li nga xam ne mooy tëralin li nga xam ne mooy république bi noonu ñoom république bi ñu àtte woo tamit xam nañ ne fow ñu fexe ba l'islam duggaale ci biir feeñaale ci biir ndax ñooñ ci réew ma lañ bokk. nous n'avons pas d'autre objectif qu'ils puissent pratiquer euh, euh librement euh, dignement, sereinement nee na amuñu geneen jublu goo xamante ne day mel ni dañuy gàllankoor jullit yi ci ñu dund seen diine ci ci dal ak ci ci ci noo xamante ne na mu leen jubloo mu mel ni ku leen cay gàllankoor nee na loolu moom du seen passe passe taxu leen jóg. Il y a ainsi 3000 lieux de culte culte musulman euh, en France. nee na fi ñu toll nii ñetti junni barab yoo xam ne ay taxawaay jàkk lañu taxaw. ca ca ca ca ñi di ca di ca ca jaamu seen borom loolu am na foofee ca France. Il y a des programmes euh, consacrés à l'islam euh, chaque semaine à la télévision publique. nee am na tamit léegi ci seen télévision bi nga xam ne réew moom moo ko moom nee nañ am na ay programmes yoo xamante ne ayu bis bu ne l'islam dina ci am waay di ca leeral loo xam ne dafa jëm ci diine ji. Il y a des aumôniers musulmans dans les hôpitaux, dans les prisons, dans les armées. am na ñoo xamante ne wàllu xeetu jàppale ak dimbalante ci ni ko lislaam bëggee ñoom dañ koy def ci hôpital yi di ko def ci li nga xamante ne moom mooy euh, yenn barab yoo xamante ne nit ñi dañ ko fay soxlawoo loolu tamit ba tey li tax état bi def ko pour dimbali julli ñi rek la ci jublu. De manière générale, le dialogue est constant et très étroit entre les autorités publiques et les représentants des organisations musulmanes en France. neen daal réew ma daal fi ñu toll nii am na ay ay jéego yu mag yu ñu def yoo xamante ne diggante état bi ak ñi nga xam ne ñoo yor l'islam ji mooy association yeeg mbooloo yooyu nee na tey yi day saa su ne gën di jëm kanam dañ koy dañ koy gën di taxawu muy gën a jëm kanam. je ne veux pas abuser de votre temps mais je voulais vous dire une dernière chose euh, vous dire à quel point euh, nous respectons aussi le rôle que vous personnellement jouez et votre communauté euh, dans la concorde nationale au Sénégal. nee nag buggul sax jël sa waxtu lu bari nee na xam na ne du jaadu waaye nag ñor na ko it mu xamal la ne moom xam na bu baax sa taxawaay ci luy tax réewum senegal mën a dal li tax jàmm am fi te dal am fi nee na ñoom xam nañ sa taxawaay bi nga ci taxaw. Et en cela vous êtes euh, pour le peu que j'en sais le le digne descendant de l'enseignement de euh, Cheikh Ahmadou Bamba. nee xam na nag ci loolee ñoom xamee nañ ci ne euh, tey sa taxawaay bii. mooy taxawaay bi yàlla ci euh, doon gi nga doon sëtub Sëriñ Tuubaa waaw. surtout. <laughs> waaw nee na fo na na nga ko waxee woon rek surtout nee na merci moom ni ngi sant bu baax a baax. bu baax. ci leer yi a xam. France. waaw la xal gën a xam doyenu France. mën gën a xam tolluwaayu France. la xalif il dit il est très très très très euh, satisfait des éclairages que vous venez de faire sur la France. Euh, vous lui permettez de mieux comprendre la France, de mieux savoir également sa position et les actions qui sont actuellement euh, engrangées pour être au service de tout le monde. C'est tout. C'est tout. C'est <laughs> excellent. Euh.